asalaamaaleykum suñu mbokk internet tii di leen nuy nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy siiw sur wasaare lamb wasaare TV mbër ak diine kon niñ koy defee rek di leen bëggee waat nag bu baax a baax ndax nee naa leen yéen tey lépp lu ñuy def rek yéen yéen a tax tey nag ñu ñëw géejawaay ñëw seet si ki nga xamante ni champion la naam nag mu nekk koo xamante ni doon préparer combat mais ñëpp xam nañu li nga xam ni mooy mbas mi muy balaa bi nga xamante ni moo wàcc moom moo tax combat amul mu nekk xale boo xamante ni macha allah dafa bari talent bari mbooloo wax dëgg yàlla ñu ko bëgg bari loolu muy papaa booy jinne papa booy jinne nag kenn du ko présenté kenn dem nañ këram bas fekk ñu ko fa ñu laajte ñu ne mi kër benn kër xaritam ñaan ko Moussar bu Amma loolu la ñu wax fa la nekk këram léegi nag dañuy xool néeg yi ci ban néeg euh, la nekk ñu xool papa ba néeg la nekk mais dafa mel ni fii ay dàllu góor ñu fi bas est-ce que duñ dugg fii xool waxam acce ñu dem bas topp ma ñu xool fii wala fii rek du ñàkk bas dafa mel ni jarul nuyoo de nañ xool rek ba xam dañ ko fekk wala duñ ko fekk salaamaaleykum wa rahmatullah bas dafa mel ni ah, ki ñuy seet mi ngi fii de wax dëgg yàlla papa booy jinne daa mel ni moom moo nekk ni mu def jàllaa ba mu def tout blanc ne xaw ma mi ngi ci koor gi xaw ma mi ngi woor wala woorul dinañ ci xam dara ñu ngi lay nuyu ah moo moo moo ma waaw tey dafa mel ni dañ ne papa foofu la nekk. mbër ñu ñëw sa kër ñu ne yaa ngi sa benn kër copain quoi mbër gaañ mbër nu mu nu mu demee nii gaañ mbër da ngay waaw affaire yi moom mooy loolu yaa ma gën a xam foo mën a amee jàmm rek fa ngay man moom fépp dafa am jàmm gunaas fu ma neex mun naa fa dugg toog aw ma sens interdit fenn wax dëgg neex yàlla. dégg naa noonu la man moom gunaas moom foo ñëw. pour bëgg ma gis moom foo mën di ñëw foo mën a wàcc boo yow fexeel ba dugg géejawaay rek waaw foo mën a laajte kay moom pour ñu ni la fu ma nekk loolu doon problème waaw. Papa booy Djiné moom lañ dalal yéen ko doon laaj mi ngi nii toog ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam te moom mooy koor gi mbër ak diine kon niñ ko defee ak yeneen bëri noonu lañ ko fas yéene wax defak moom wax dëgg yàlla mi ngi nii def jàllaabeem toog nag di ñu kii mais papa ñun yooyu yëpp garaawul mën nañoo mën nañ ko kii quoi mën nañoo accepter loolu euh, Basir Diouf dañuy ñëw ci li nga xamante ne nag moom mooy waxtaan bi ñu ak papa ñu xool ba xam moom ci koor gi ba xam gars yi ko tànn dina leen dina leen kii euh, dina leen satisfaire wala daal après waxtaan na ci li nga xamante ne moom mooy cappaandaw gi ñëpp ñëpp xamoon nañu dafa am combat ak ki nga xamante ne moom mooy bébé bis bi euh, mbas bi nag wax dëgg yàlla ñëw yàq lépp loolu yëpp ci waxtaan aca bas ñu waxtaan ak papa booy jinne مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال waaw bas di leen nuyuwaat nag bu baax a baax kon ah. ni ñu koy defee rek mbët ak diine tey nag ñu dalal ki nga xamante ni moom mooy Papa Boy Djiné mu nekk nag koo xamante ni kenn du ko présenté kenn moom lañ nag wër ba gis ko ñoo fas yéene waxtaan ak moom ndax nee naa ne yéen yéen yéen ñu ko laaj te lépp loon bëgga a dañ ciy dox papa ñu nuyuwaat la. waaw maa leen di ginnaaw bu ma santaatee yàlla julli ci yonent bi di sant samay ñaari waajur di sant sama papa di sant sama yaay di leen ñaanal fi ñu yàlla xare leen àjjana te yeexe ñu di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba maa ngi nuyu waa kër yi ngeen fi ngeen ma fekk di nuyu waa Gunaas yëpp yëpp yëpp ak waa Géejawaay di leen wax dal leen ak jàmm. di wax ne lépp loo xam ne woor nañ ko ci weeru koor gi suñu borom yàlla na si fay ay yiw di ñaan jàmm si réew mi di wax comme niñ duggee si koor gi si bisimilah rahmaani rahiim yàlla génnee ñu si si alhamdulilah rabbil alamin yàlla na ñëpp am jàmm ci doole Serigne Touba. am na solo nuyoo ba am na solo papa mbër ak diine naka koor gi noo koy dundee. waaw santaat yàlla bu baax. comme dundoon nañ ko daaw waat ko ren kooku dañ koy santee santeewaat yàlla di wax ñu koy téye ay déwéni déwéni déwén ci barki yonent bi ñu ngi koy dundee comme d'habitude rek comme niñ ko doon dundee niñ koy dundee comme Sénégal rek waaw di def li nga xam ne moom la ñu yàlla sant ak yonent bi ak sëriñ bi waaw. ñu ngi jéem de. Mm-hmm. waaw. ban at waaw yàgg na yàggul parce que ñun moom bi ñu xamee xàmmee ba léegi nekk ay responsable tey nekk ci kër sa papa nekk mag am lu la war d'abord soo bëggee yàlla dimbali la da tegu ci yoonu lislaam nekk ci li nga xam ne moom la yàlla bëgg ak yonent bi ak suñu sëriñ si nga xam ne ñoom ñoo fi nekk waaye ñun buñ nekkee xale nekk ndaw peut-être loolu ñëpp jaar nañ ci daal waaye buñ demee ba xam-xàmmee xam ne ñun ay magum jëmm lañ instant bii nii xam nga mën nañ yor doom xam nga mën nañ yor jabar nekk responsable xam nga si lañ xam ne nag instant bi caaxaan def lu bon waratuñu ba nga xam ne lépp loo xam ne yowoon ak suñu diine rek dañ ciy nekk woor nag yombul waaye dañuy jéem rek waaw parce que nit woor na ba ngoon jot foog ne am nga koor yàlla moo xam waaw mais l'essentiel boobu ñun ñu ngi ñu ngi ñu ngi si li nga xam ne peut-être boo ñu si fekkee dañuy respecté jox ñu cër bi muy bu ñu xëyee dinañ def lu ñu war a def ba ngoon jot defee ko ni ko Sénégalais defee waaw papa kon su ma déggee sa wax mel ne ba nga nekk tout tànk woo farataaloo ko woon de. waaw biñ gënee nekk xale moom peut-être woor farataaluñ ko woon. Hmm. parce que xamuñ si woon lu bari daal. waaye biñ demee ba gën a màgg tuuti. Hmm. weeru koor bu jotee dañ ci jéem def lu ñu mën. Hmm. waaw ba tey ba sànq ba nii tamit. Eh. daan nga def kon wóoru gàlle lu bari. waaw lu baree baree bari sax. <laughs> sa wóoru gàlle nu mu daan demee ñun suñu waru gaare moom dex meew lañ doon dem. Mm-hmm. comme sama doomu ndey rek maa ngi koy nuyu bu baax. Mm-hmm. Mathia. <laughs> ak ndam si yàlla si Aziz. dañ doon dem dex meew. Oh, dex meew boobu technopole diini fi ñu entraîné léegi. boobu yàgg na loolu ay boo xoolee ay deux mille quatre deux mille cinq. Mm-hmm. dañ doon dem foofu boo man xam nga jaar naa école mais yàggu mu fa. sept heures laa maa bàyyi midi mais sama doomu day maja maag moom ñoo yem terrain bi lañ doon daje CFA maag Aziz Aziz suñu xare tëkkat la woon quoi gaañu na ndeysaan ñu koy ñaanal suñ borom xaree ko àjjana dañ doon daje foofu rek jubali dex mais fa la ñuy yéen ba ngoon jot mm-hmm. bu ñu ñibbisee fi lañuy ñuy tàqalikoo fi si station bi maji ñibbi ñoom ak Asi ñoo bokkoon koñ mais man fii ñibbi sama gàlle fi ku si nekk nag des fois dañ doon yóbbu ku si nekk da ngay yóbbu sa morom ba sa gàlle gëmloo sa waa gàlle diw dafa woor parce que ñoo nekk su bëggoon jot tàqali ko rek ñibbi mais actuellement nii sama gàlle néeg bi nga xam ne foofu laay sangoo samay gàllaaj benn jour sam papa dafa ma ñëw fekk ma foofu fekk saag bi ma doon jàngee dafa desoon ay gerte tubaab ah. ma dugg fa di lekk gerte tubaab bi mu fekk ma fa ne ma kon yow wóoroo ma ne ko waaye man de sama biir day métti moo tax tey wóoroo ma te suba gi damaa déclaré woon damaa wóor nag moo tax maag Mathia moom ak Aziz moom dem si yàlla si surtout Mathia moom Mathia moom buñ buñ buñ amul jëmu wóor rek ak Mathia moo tax. Mathia pere laa parce que doon seen koñ. na ma yàlla baal ci kàddu gi nag ci weeru koor lañ nekk. mais Piso boo mësaan dégg dafa réer rek Mathia indi na ko suñu kër ñu saaf ko ci weeru koor. kon ma ci war a sàcc pison yi ñoo jox leen génn de. fu mu moom suñu garaat dund moom moo jël relève bi. Ah. pison bu réer koñ ba rek. non moom moo ko balaag yóbbu ko. Ah. waaw. mais après ndeysaan wóoru gàll yooyu noonu dem ba benn instant nag euh, ban kii euh, nga jékki-jékki rek am na instant bi wax dëgg yàlla nag wóoru gàll yi léegi jeex na léegi damay woor nag normal comme yeen gars boobu da nga koo décider wala dañu koo imposer. man man dama jékki-jékki parce que man woor. yombuloon ci man quoi ku dee ak sa bàmmeel dëgg rek moo neex yàlla mais bi ma demee ba bëgg commencé di woor man su ma mësaan woor nii damay su ma mun naa xëy su ma su su ma xëddee nii tëdd nelaw bàyyi une heure laay yeew su ma yeewoo ma julli après tëddaat mais diggante trois heures jàpp quatre heures cinq heures non foofu moom war na Serigne Bamba day mel ne maari day yi léegi damay damay mujj daal obligé rek lekk léegi nag noonu laa def defi jaayante léegi su ma su ma wooree ba ay dix dix sept heures dix huit ma lekk léegi suba dama koy jaayante waat ba dix huit noonu laa def nag ba mujj gi waaw damay asonné rek dem mais gis diggante dix huit jàpp dix neuf heures moom heure boobu ku ma fekk ci woor moom danga may yërëm dangay yaakaar ne tey laay dee. parce que day métti si man quoi man moom war day métti si man trop trop trop trop mais dama koy jaayante. Mhm. waaw est ce que basé wu woon ci ñu naan mbër du woor est ce que tamit basé woon foofu. non boobu ñun làmb ñu ngi si doon dem sax mais peut être demeewul woon ni mu demee nii quoi. Mhm. avant ay mbër du woor ak mbër lii mbër laa man moom affaire mbër yooyu man basé wu ma si quoi. Mhm. l'essentiel man mbër laa bu jotee dama koy def endrement bu jotee dama koy def. mais après bu jeexee damay jël mbubbu mbër bi teg ko fële nekk nit comme nit ñi ko parce que mbër du caageenu da ngaa war a nekk mbër rek après ñu classé la xam nga comme dof wala xam nga comme nit koo xam ne tey jii nii man la su xam nga boo rombee nit du la respecté man bu heure entraînement jotee dinaa solo rafet dem entrement heure làmb bu jotee dinaa def li nga xam ne moom la mbër laaj ma dem def ko li si des ma bàyyi ak yàlla mais après bu mbër jeexee nag damay correct soo ma rombee di nga xam ne kii da ngay hésité sax kii mbër la wala du waaye bu ma koo dem tamit boo ma rombee da nga xam ne kii mbër kaamil la te loolu moo am importance ci doomu aadama soo nekk boo soloo pour mbër boo doxee dañoo war a xam ne kii mbër la boo simmee mbër mi teg fële tamit waaw nit ñi buñ la xoolee dañoo war a xam ne kii nit njaay la waaw mais mbër du affaire dof quoi. Eh. noo déggee koor parce que dañu bari dañ naan koor koor ñëw na dañ ciy profité est-ce que koor kese kese nga war a mën a jaamoo yàlla. ñun moom. man boog laay wax su ma nee ñun de sax damay généraliser non man laay wax man sama def lu baax wala sama wax lu baax aajowul koor déedéet man sama def lu baax moom muy koor budul koor dama koy def parce que yàlla moom li mu yor yee mayewu ko quoi da ngay liggéey pour mu jox la saa su nekk nag ñun ñu ngi jaamu yàlla ci côté bu ne lu ñu yàlla gërëmee ak lu ñu suñu waajur gërëmee. ñu ngi lu ñu am ñu ngi koy bokk ak doomu ya doomu aadama yi ak jaamu jaamukatu yàlla yi lu ñu am waaw parce que man moom noonu lay dundee man Baye Fall la su ma naree am te du ma ko bokk ak doomu aadama je préfère que suñu borom ma ko téye quoi man moom noonu laay dundee te mënumaa gis nit kuy sonn wala may gis nit kuy xiif loolu moom sama habitude la waaw même mala yi nga xam ne moom laa yor suñu kër sax ñoom ñu lekk moom a gënal man ma lekk xar yi nga xam ne moom laa yor suñu kër kon yaakaar naa ne ku ku ku fonk xar bàyyi du bàyyi doomu aadama man ma gis nit ku xiif wala ku mar wala ku am problème nit bu amee problème sax jaral na ma jël sama alal ma dem tayle ko wala ma jaay ko dimbale la parce que peut-être soo amoon alal bi ma yor doo ñëw di ma ñaan da ngay dem fajji ko ak sa soxla sa bopp man noonu laay dundee quoi muy koor ak burul koor waaw. ku woor nan la war a la war a mën na mel ku woor ban comportement la war a yor. koor Sénégal yombul. peut-être ñun loolu moom suñu habitude la ko quoi waaye peut-être yàlla moom mooy doxalee noonu ay mbiram. ñun nañ nañu woor rek ñu jaamu yàlla jox yàlla mu téye li ci baax suñu borom moom moo ko xam parce que nit mu ngi woor mu ngi julli mu ngi def ponk yi nga xam ne moom la lislaam laaj lépp mais est-ce que yàlla mu ngi koy nangu kooku suñu borom moom moo ko xam mais dañuy sabablu rek waslu ak def. waaye koor bi yàlla di nangu ak bi muy bañ moom suñu borom rek moom moo ko xam waaye nit moom boo waree moom li mu laaj lépp lépp lépp lépp lépp lépp ah dañ ciy góorgóorlu rek mais dajal ko yombul daal. mais ku woor lan war a a comporter bu baax. mais respecté waxtu julli maandu yem fi nga war a yem xool li nga war a xool dox li nga war a dox toog fi nga war a toog. parce que nit moom boo waree mu woor munoo woor ba pare te doo maandu. nit mënul woor ba pare te du maandu boo wooree bëgg a jëw da ngay xiifal soo wooree di wax si ginnaaw nit da ngay xiifal boo wooree malheureusement duggalu si yoonu nekkul da ngay xiifal woor dafa nekk loo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa sensible quoi il fallait que nga nga ànd ak maandu xam nga yem ci li nga war a yem rek toog seen kër boo fekkee farata dëgg-dëgg ak fulla ak fayda moo lay génnee seen kër nga génn dem doxi ko ñëwaat toog seen kër bu fekkee liggéey nga dem liggéey ñëwaat toog seen kër mm-hmm. mais su fekkee da nga bëgg a woor toog si jotaay am jàppal Fama jàppal moo ci am xam nga jàppal papa da xiifal quoi boo wooree te julliwoo da kon nit boo wooree il fallait que nga maandu xam nga yemale say bët xam nga yem fi nga war a yem wax li nga war a wax sinon rek da xiifal daal man sama gis-gis quoi waaw ah, parce que sama jàng soriwul waaw ah, sama xam-xam soriwul tamit. am na solo papa est jigéen kese moom moo war a mën a sangu farata. non sangu farata amul jigéen amul góor. amul mag amul xare sangu farata moom boo xasee ba mesure moom waaw mu nekk jigéen mu nekk góor danga ko war di def chaque àjjuma danga war di sangu farata soo waaw boo géntee tamit xam nga comme waaw ko gars yi di waxee jigéen même sos tamit waaw boo gisee mbaa xam nga boo paree da ngaa war a sangu farata ba set wecc waaw ak looy mën di def sangu farata moom dafa baax si doomu rawatina nga nekk jullit. waaw parce que ñun moom xam nga set waaw yomb ñu mais il fallait que ngay góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax. waaw parce que sobe moom mënut a ànd ak dara wax dëgg neex yàlla. am na solo beneen bi mooy ñu gis yéen ñaam soxna de parfois dañuy dégg oustaz yu bari dañ koy wax ci koor bi est-ce que tey euh, weerum koor weerum koor tey euh, góor ak jigéen. war nañoo ànd ci weeru noo soit avant ñuy woor di jaamu yàlla di sekk ak sa soxna ci diggu koor mënul ne lislaam waxuñu loolu quoi. waaw hmm. ah, boo ndogoo ba pare nag diggante boo naafi la def say safaak huit ba pare ba nga xam ne subaa des diggante boobu lu ne xaj la si. mais boo dégg naa ko si oustaz sax même boo doon sëkk ak tey sa soxna ba dégg noddu lii la lislaam moom mooy da war a dem sangu ji ba set xëdd jëm ci koor mais diggu koor moom wala bëccëgu koor lislaam jàpp naa ne ñu lool te loolu laa foog ne looloo am tamit waaw ah, sama yaakaar bu xa bu gàtt ko waa mm-hmm. ah. nga nekk tamit ba léegi ci weeru koor toog ak sa soxna di waxtaan ak moom jékki-jékki mu mel da nga yëg sa bopp quoi. waaw sa xel da nekk ci moom <laughs> <laughs> man moom sama bopp laay wax quoi. waaw sama bopp laay wax. man su ma su ma xasee ba yeewu su ma xëddee ba tëdd d'abord man sama xel dama koy génne si loolu. parce que mbir yi lépp xel la quoi. loo deful sa xel rek amaana moom du ñëw quoi te sa soxna moom si jëm boobu bu fekkee mu ngi woor xelam du nekk si loolu waaw sama gis-gis boo quoi te man bu ma xasee ba yeewu te mënoo di nelaw di def yenn naka su dul noonu yi waaw bu ma xasee ba yeewu sangu naa maa ngi suñu ëtt kër nekk sama xari foofu ba benn heure bi ay 18 heures moins ma dem géej coq coqal wala heure ndogu su may dugg si kër rek ndogu day jot. kon am na yoo xam ne yooyu moom mënu fa xaj quoi te yooyu mënul nekk sa xel moment boobu boo yeewoo yaa say xar soo fa jugee presque dangay pare rek dem géej soo ñëwaatee dangay tombeek ndogu jot waaw ndax yooyu moom goo ma ne peut-être boo wooree gëm goo ma ne dina nekk sa xel quoi pour man ah soo wooree euh, tey euh, ma woor ma woor nan na ko olof doxee comme ma woor toute une journée Euh, euh, ma julli cinq julli ma tisbaar julli ma euh, takkusaan astafurlaa julli ma takkusaan mooy tisbaar julli julliwu mënul nekk boo jullee tisbaar moom boo yeewoo nga julli fajar julli cinq ah julli tisbaar tey jii man la su may nga romb takkusaan romb timis ba ko julli jigéen loolu mënul nekk man boog duma ko def parce que tey su fekkee damaa julli fajar tey julli tisbaar romb tàkkusaan romb timis bëgg a dem julli ji gee il fallait que ma dem julli ji tàkkusaan ba pare ñoo julli timis soo ko julli gee soo ko mën a naafi la loolu moom la xel sax nangu si sama gëm-gëm bokk ak sama gis-gis man mi nga xam ne noonu laay def des fois ma julli fajar xam nga julli tisbaar am ay yitte yu ma dem doxi ji xam nga ba ay timis laay duggaat sama kër wala ay gée laay dugaat sama kër balaa muy julli gée damay dem julli ji tàkkusaan julli timis julli gée te loolu moom moom la xel nangu te man noonu laay jëfandikoo man sama si sama jaamu yàlla quoi te loolu la xel nangu waaw te noonu laa koy utiliser te noonu laa koy defee xaw ma ndax baax na wala baaxul mais sama gëm-gëm bokk te loo xam ne dama koy dégg si ustaas yi waaw. koor ah jaamu yàlla la te bonus la pour doomu aadama yi daal parce douze mois tey su fekkee suñu borom moom la sax onze mois yi ñu nekk si li nga xam ne tey peut-être neex na yàlla wala neexul yàlla yàlla jël benn weer ne peut-être weer yi moo gën ci weer yi yàggul fanweeri fan la mu ne gën leen a delloowaat seen xel ci man parce que moom moo ñu sàkk te ci moom la ñuy delloo si moom la jóge weer bii di weeru koor sell ci ci weer yëpp kon tey yaakaar naa ne buñ ci duggee war na nañoo mën a jàpp lépp loo xam ne tey jii nii ci jaamu yàlla rek ñu nekk ci loolu parce que yàggul te buñ ci jógee tamit lépp loo xam ne tey jii nii lu bon la woon wala lu ñaaw loo xam ne peut-être nit mu ngi ko doon def wala maa ngi doon def ñu góorgóorlu bañ ci delluwaat parce que suñu borom heure boo ko tuubalee rek war nga mën a jaayante ak sa ba doo delluwaat ci li nga xam ne moom nga ko tuubaloon. Mm. weer bii nii dafa nekk ci weer yoo xam ne tey jii nii moom moo gën ci weer yi muy weeru koor. te doon naa dégg tey si mag ñu baax ñi koy ku si mel ni Serigne Touba wala Seydina Mohamed weer bii nii bu doon ñëw dañ doon kontaan comme comme comme comme feet lañ ko doon def te dégg naa ne bu doon dellu ñoom dañ dañ dañ ko doon dañ ko doon waxiiru du du jooy parce que bëgguñu mu dellu parce que weer bi dafa gën ci weer yi te maa ngi koy dégg li ah imaam yi di ko wax benn boo benn boo def suñu borom dala koy multiplier par jëm kaw kon dañ ci war a profité. ñu jaamu ci yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax te comme ni ma koy waxee rek bu ñu ci génnee tamit ñu gën ko saxalaat parce que ñun ay jullit lañ te ay doomu aadama lañ te bés day jot ñu faatu ñu gas pax dugal ñu si te biir bàmmeel xam na te lépp loo fa lépp loo jaamuwul suñu borom ci kaw suuf boo demee sa bàmmeel doo ko fa fekk te def lu baax tey amul jullit bi amul njaago bi amul soose bi nit moom sa bàmmeel li nga fay li ngay li nga fay liggéey non ci kaw àdduna fii nga koy jëfee di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñu jiitu yàlla xaree leen àjjana te yéexe ñu di ko ñaanal sama papa di ko ñaanal sama yaay ak mboolem julli bi fu tëdd ñu fi des suñu borom yàggal fi seen taxawaay wéral leen kàttanal leen waaye bés a ngi si biir bés moom ala kulli ali ndax suñu borom moo ko wax kullu nasin sa yaxati mootin bakkan bu ñum dund rek dina ñam dee waaw yàlla na yéex nag mais ci yàlla la ñuy góor góorgóorlu daal baax na bu baax baax baax rawatina ci ponk yi nga xam ne moom la ñu sant. suñu borom waaw. nga nekk ndaw. surtout mhm. jaamu yàlla moom aajowul ndaw aajowul mag. waaw aajowul mag aajowul xale. bàmmeel comme ni ma la ko xat na xataay boo xam ne loolu liggéeyul doo ko fa fekk. waaw loolu liggéeyul doo ko fekk du yaay moo la koy liggéeyal du papa du mag du rax yow yaa koy ñafeel sa bopp jaayanteel ko sa bopp. Mhm. ngir boo dee fekk ko fa. Mhm. waaw yàlla ñu yàlla musal ci bàmmeel bu xat. yàlla ñu yàlla musal ci lu bon. ci doole sëriñ bi. Mmh. timis ñaata raaka la papa. timis ñetti raaka la. waaw. Mmh. Ah. su may julli ñëw jàpp ba pare ñëw jàpp def li ma war defee def yëpp ñëw taxawal ñëw ne allahu akbar julli ne salaamaaleykum julli jooju julli boobu noonu nan nga ko gisee est nit war naa mën a ñëw taxawal julli rek sans ça ça dara. non mmh. nit boo demee nga jàpp pour ñëw julli soo likaamee kabar nga war a def saar. Mm-hmm. nga war a def da nga war a def Fatia. Ah, Fatia astaghfirullah Fatia. da nga a teg saar. saar lu mu gàtt gàtt saar la moom. ok mais danga war a jiital Fatia ba pare toog a teg saar. julli moom boo boo boo boo julee te def Fatia te tegoo saar. ah man boo góo ma ne est-ce que nga am julli yàlla rek man moom yàlla moo xam wala loolu boo soit da nga koy laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ma gën a waa jàng parce que man moom sama jàng soriwul quoi dëgg neex yàlla waaw man sama jàng soriwul lool lool lool lool. waaw sa jàngu soriwul mais nag wax dëgg yàlla li ci wax macha allah parce que teg nga ko ci yoon après nag oustaz bi dinañ ñëw ñëpp ndax parce que nee naa ñoom ñëpp après tamit oustaz bi dina toog. ñu xool la xam papa ay ñoom armée ñu xool daal affaire yi daal mais daal macha allah lañ mën a wax papa tey dañoo bëgg nga baaxee ñu benn saar boo xamante ni ah, papa tey suy julli timis wala bu julli ko faral mooy bu saar rek boo xamante ni mën nañ koo may surtout nag ñi ñoom ñoo lay ñoom ñoo lay bëggee di la voter <laughs> ah man moom. Ah. man moom su may julli wax dëgg yàlla moom su ma defee Faatiha ba jeex. Mhm. dama siy teg. bisimilah rahmaani rahiim ku la la waxat allahu samat lam yulit lam yoolal lam yuxulan ku faan xat mm-hmm. après teg ci alhamdulilah bi rabbi